balla ñu ngi lay nuyu ci turu seexal Alassane di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaakaar naa ni kaddu yu bi bu jógee li mu war a waxanteeg yow dana ko waxanteeg yow waaye li la dal du jaas ndax kenn ku nekk ci ñun bis bisa ngi ñëw boo xam ni ah yàlla nag dana yebal malakal mawti nag mu jël sa yàlla na yeex yàlla nag bi muy jël lu mu moom rek la jël jëlagul mukk lu mu moomul xanaa gën a bees la moo fi ne waaye am na ci ñoo xam ne ci mbooloo mi ñoo xam ne ñàkk nañu way jur ñi ko ñàkkagul nag seeni way jur yàlla na fi yàgg kon nag bi ñu ñëwee tamit gis Mamor sekk mii nga xam ni sunu maga sunu xarita nga xam ni lépp loo xam ni mu ngi koy def ci événement balaa événement boobu sori ci wàllu communication dana ma woo jiital ma ci loola kon bu ma ko fi fekkee dana ko nuyu ziar ko ma xam seen diggante ya ñaar ci bis ba nga xam ni mu ngi koy taxawal ca Mboro nga xam ni dangay ngay sa yitte yaag Abdoul Aziz Ndiaye ñëw fekk si ko kon bu nu ko fi fekkee dana ko nuyu muy sunu lépp waaye daal ki ñëw daal bi Moustapha di jël téléphone am di la woo wax na ni la gan gu mag a ngi ñëw koo xam ni ci réew mi kenn du ko présenté ci réew mi ak bitim réew kon nag ñu ngi ñaan yéene jima am ak liggéey bi mu bëgg ci biir réew mi ak yéene jima amal eh, amal jaam ñi yéene jooju suñu borom yeggali ko te mottali ko ndax wax dëgg yàlla eh, loolu rek lañ koy ñaanal kon nag dañuy bàyyi kaddu gi ak moom moo yëkkati kaddu bu yëkkatee kaddu ba noppi nag kaddu gi nag doog dem ci buur incha allah seex bi nee mu ngi sant yàlla bu baax nee na des di ko sant nee di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa moom aba zahra nee mu ngi nuyu mbooloo ne Balla mi ngi lay nuyu ak sa mbokk yi ak sa àndandoo yi ak say wëllëre ak say soppe nee na lii ñu def tey ñëw seet si la jaale la nee na dafa war jullit bu ne ci mbokk jullitam nee na ci tànk yooyu rek la ko teg moo tax bi mu jógee tey ji dem jaale ji alaaji Moustapha Guèye mi toog ci sunu wayjur wi génn àddina mu wax ni dana ñëw ñëw jaale si la nee na daanaka sax miinante wuñu wax dëgg yàlla nee na su waxee dëgg benn yoon lanu mës a gise te kilifa nag moo la indi woon ca këram ci benn guddi muy Omar Imaam nee na ñu amoon jotaay bu am solo nee na ñu fasante woon wëllëre moo tax nee na lu mel ni su xewee ci yow nee na ñu jël suñuy tànk ñëw seet si la masawu la nee na bokk ak yow mbir mi bi muy xew booba seex bi nekkul woon ci réew mi moo tax mu ñëw tey jii doxale ni mu doxale nee na ki génn àddina moom kilifa gu mag la woon ci réew mi nee na nit ñi bëgg ko lool ndax jikkoom ak taxawaayam yow mi ñàkk it nee na nit ñi bëgg la lool ndax sa taxawaay sa bëgg doomu aadama sa bëgg diine ak fonk lool fi nga bokk ci Seyxul Xadiim loolu nag nee na nekk lu rëy ci réew mi nee na su yàlla dimbalee nga mën a jàngat nee na soo gisee Balla Gaye nee na su fekkee ne am nga basaratul xalb da ngay xam ni làmb ji gannaaw bi mu nekkee mécc ci yow nee na liy dox ci yow dëgg dëgg dëgg mooy dëgg yi ngëm nee na ci sa dund gépp da ngay xool ci moom bëgg bu mat sëkk ci seyxil xaddim te seyxil xaddim nag soo ko bëggee doo dandu mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne doo dandu mukk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax jotaay bii amal ko solo lool lool sax su fekkoon dafay nekkoon ci jamono ba mu xewee ne dana ñëw ànd koog yow nee na ci wàllu taalibe kese parce que àdduna bi nit ñi ni ci ëpp léegi danoo war a delloo siwaat seen xel addina amul benn solo du alal nee na du yu rafet yi ñuy gis nee na donte am ko baax na waaye nite moo waral la lépp nee na Moustapha mi toog nee na seen xame ñoom ñaar ëpp na vingt cinq ans bi mu nekkee ci diggu ndëndëm booba cheikh baa ngi dëkk HLM. mu ñëw seet si ku ñuy wax Ousmane Bari. nee na mu ñëw seet si ku ñuy wax Ousmane Bari. nekkoon wóllëre Mbaye Guèye. nekkoon wóllëre Mbaye Guèye. Moustapha li ko nit ñi di ko topp yëpp ndiiraan. nee na Moustapha li ko nit ñi topp lépp ndiiraan. ndax li mu ñëw ci HLM. ndax li mu ñëw ci HLM. yaa ngi gis ci moom. yaa ngi gis ci moom. waay waay woyof gu mat sëkk. ne ñoom ñaar ñoo naanonoo attaay bis boobu. yëguloo ni sax. tigre de Fass bi Youssou Ndour daan way jamono bi Youssou Ndour daan way jamono jooju ñëpp di bëgg mu ñëw ca ñoom nga xam ni ñëpp bëggoon Alaaji Moustapha Guèye ñëw ca ñoom muy jamono bi nga xam comme Balla ni mu mooy jamono jii nga xam ni Balla nii mu mel tey wala ñeneen ca ñoom wala ñeneen ca ñoom waaye terewul waaye terewul nii mu mel ni nii mel nii musul musul génn li musul génn lii nii mu mel man mën naa seex bi mën na koo seede nee na dund nañ fii ci Ndakaaru. wax na ko léegi. wax na ko léegi. diggante Paris. diggante Paris. Italie Italie. Suisse Suisse. fu mu fa mus a nekk mu fa ne. moom ak Madiagne moom ak Alxaaji Madiagne Ndiaye. fekk nañu ma fekk nañu ko fa. ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba fajar. donc Balla. Balla. suñu amee daal luñ lay dolli ñun. suñu amee ñun luñ lay dolli ñun. mooy sa bi nga wéeru ci ci bi nee na wéeru gi ngay weeru ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te li koy firnde euh, dafa am bis dafa am bis ne mu laaj ma man mii mu ni ma yëg naa ci Balla Gaye ku bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne am na doomam boo xamante ni Muhammad la tudd mu ni ma est-ce que directement la wala indirectement mun ma yonent bi la ko tuddee directement loolu yëg-yëg la bu kawe mu ngi jéggalu ci kaddu gu guddi gi di leen sant bu baax di la ñaan nga jottalil ma njaal mi sa mbokk yëpp jottalil ma ko sa wóllëre yi kii di baabooy nit ku tedd neen li tax mu wax ko dafa am wóllëre moom bu mag

wax na ma lii ba ca topp sëñ Mamour Seck ne ku tedd ngi nii ku fidèle ku jàpp ñàmburam ne ku fonk diine te lu am solo la ne encadrement bi nga am lu kéemaane la la ca sofu nag mooy liiru liiru jaan ne ne mu bëgg ko lool mu ngi koy doog a gis yaatu la ne gis na ni xol bu yaatu la am. te soo xool dama xool aussi mu mu dox gëddanteeg Balla ci ci tooñ. ne dafa xool mu dox gëddanteeg Balla ci tooñ. mu ni kii di war mukk wallahi la azim loolu la ko suñu borom dimbi mën naa xool nit ñi rek xàmmee ci ñoom lu bëri maa ngi sant di la ñaanal aussi wér di la ñaanal eh, yàlla nag doon sa cëslaay li tax ma ñaanal la sunu borom moo wax nee na ci suuratul baqara nee na aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. nee na yàlla wax ci aaya boobu. dafa dafa interpellé. ne dafa interpellé. doomu aadama directement. doomu aadama directement. ne soo ma woowee. ni ko yow soo ma woowee. ma wuyu la ma la. ci jamono ci jamono. bi nga ma woowe bi nga ma woowee. loolu la jiital ne loolu la jiital. yàlla chantage ne yàlla chantage. parce que dafa élégant. moom yàlla dafa élégant. ñaareel ba ñaareel ba. fal yastajibu li. fal muy doog woote moom. ci wooteem xoolal moom yàlla ni mu ko doxal moo tax moom sañ-sañ ñaanal la yàlla am sañ-sañ aussi am sañ-sañ aussi ni soo weetee nga ñaanal lu li tax ma wax ko ñaari mbir benn bi ne déggagul ba léegi ne sëriñ bi moo mën a maye ne da ngay dégg ni moom sëriñ Tuubaa ak a mën a ñaan yàlla ne moom wala sëriñ bu mu mën a doon rek mosoo dégg ne ak mën a maye. yàlla. dafa nar a ràng garaat bu musul ràng benn doomu aadama. ne yàlla dana ràng rasulillahi garaat boo xam ni mosu koo ràng benn doomu aadama. asafaatul uzma la tudd. asafaatul uzma la tudd. mooy la grande intersection. mooy la grande intersection. ne mu jagleel rasulillahi ñuy ram mu ram ñuy jullit ak ñu dul jullit. ne suñu soppe dafa bëri kersa. ne suñu soppe daa bëgg daa bëri kersa. ne yàlla du yem foofu. yaa muhammad la koy wax isfa rammul ma nangul la waxal ma dégg la ma dégg la ñaanal ma may la lii la yàlla wax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne mbir mi yemul foofu biir bàmmeel juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan su fekkee climat bi moo am su fekkee ni climat bi moo am diggante benn fan bi ñu suulee nit ne diggante benn fan bi ñu suulee nit ba juróom benneelu fan ba sax yi ñu ngi waxtaan seen biir di xool nañu lañ lay séddoo yaramu jëmm jooju nee na ci discipline di ko waxtaane ñu xool càngaay la xool naka la mel nag pour perse ko sax nag ak suuf ay taalibe sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit su bëri lee salaatu ala nabi cangaayam sax ne sax ya duñu ko laal nee na suuf nag du tañ ci yaramam leeru yonent bi mooy wéttali kañu denc ba bis penc yal na yàlla boole sa wayjur wii fi jóge yal na ko yàlla boole ca ñooñu nga xamante ni ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk seen wéttal moom gën gi mindeef ne li neex ci wax ji ne saa yu nu dëgmalee nag di waxtaane yonent bi lu aajo yu bari bari ne su nit ñi teewloo malayka yi ne ñu ngi yónnee message ci pays yàlla di wax diw doomu diw ak doomi diw ma ngay toog di taaxeerlu fa ñuy waxtaane sa soppe bi yow yàlla ñu ni yàlla lan moo war a nekk payooru kooku lan moo war a nekk nag payooru kooku mu dëkk ma laat yonent bi ne mu dëkk ma laat nag rasulillah moo tax borom xam bu mag physicien la belge ne ne borom xam-xam bu mag physicien la belge Cheikhul Khadim ne Cheikhul Khadim dafa wax ni dafa wax ne soo bëggee xam dëgg-dëgg kan mooy yonent bi ne da ngay daw nag ci suuratu naj mi aya benn ba fukk ak juróom-ñett mooy soo ko yëree da nga xam dëgg-dëgg kan mooy sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ben benn physicien dafa jàng xasida bi daal di wax ni maa ngi doog a ràññee naka Jibril bi jël si yonent bi jëmee ko ca Isra bi voyage bu mag ne ne jëmee ko ca Isra ca voyage bu mag ba mu ne ndekete miinul fa mu jëm ndekete moom ka ñuy yóbbu nag miinul fo mu jëm ndekete ndekete ki mu jël si ki mu jël si kookoo miin kookoo miin fa mu jëm mu ne du Jibril mu ne du Jibril de ñu ne ko lu tax ñu ne ko lu tax ñu ne yàlla ñu ne yàlla moo tax Seexul Xadim kenn du moom moo tax Seexul Xadim kenn du moom ci bëgg ci bëgg nee na ci bëgg Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ci dëgmal rasulullah nee na ci taxaw rek di xaar rasulullah bi nga xamante ni jibril wax na loolu ne bi nga xamante ni jibril wax na loolu ne ne ñëw na jël si ko li tax mu firndeel ne xamul fa mu jëm. ne li tax mu firndeel ni moom xamul fa mu jëm. ba ñu àggee ca juróom-ñaareelu asamaan. ba ñu yeggee ci juróom-ñaareelu asamaan. yàlla dafa wàccee nee na benn rido. ne yàlla daa wàcce benn rido. ma basru wa taha. ma nee na wëlbati ko encore nee na ci biir surat bi summa dana fa tadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa ma kadaba alfuaadu ma raa laxad raa min ayaati rabbi lkubra ba moo moo ko tëj ci fukk ak juróom-ñett nekkite yoo jibril lu mu seen lu mu seen àgg ca ne yonent bi lu mu seen nee na looloo obligé ne def déplacement ñëw ci sayduna muhammad waay waay kay dem ca mbir ak ki mbir di fekk si ne ñoom ñaar wuti na moo tax fa la yemale wax ji di la sant bu baax di sant ñaap di feddali kóllëre di ñaan kër gi yàlla na fi yiw yàgg yal na yàlla dimbali la ba njaboot gii góor gi bàyyil la ñi la féete mag ak ñi la féete ndaw ak ñi mu la bàyyil ñu ay soppe yal na yàlla may la kattan biir kattanu poos boo leen mën a yoree ba dara du yàqu ba bis bi nga koy fekk ji yal na yéex alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa falyakfur wassalaamu aleykum wa taala wa mu mel ni kon ñun dañoo ñëw fii tey ànd ak euh, Cheikh Alassane Sène ginnaaw bi mu jaaree ci kër mbéy gi Tigre de Fass jaare si ko namoon itamit ñëw fii ci dubal Less jaare si ko ndax kenn ku nekk si ñaam ñaar na ak baayam xaaj Majib seen wóllëre moom i tamit Cheikh Alsane Sène séq ak ñun wóllëre ndax dañoo bokk génération xëy na ma këf leen mag tuuti waaye xëy na yooyu itam Balla Cheikh Alsane këf la mag tuuti ma sawar lool nag ci bi mu ñëwee wax ak man téléphone dama daa bëggoon dëxëñ ñaari njaal yi def ko muy Ababacar Mbaye Guèye ak wëllëreem ba Double Less Cheikh ñu lay fàttali ne la rek Mbaye Guèye ak Double Less rawante wu ñu weer ndax Balla bi muy ñëw euh, di jaale si Mbaye Guèye dafa jóge ci baayam ñëw di yónnee nuyoo ak njaalu Mbaye Guèye te ku ñu matul weer mu dem wuy ji donc ñoom ñaar ànd nañ ci àddina ànd bu rafet bokk def lu bari bokk même métier bare pay seen pare seen métier ànd def jubilé kottante ñëpp di jooy yaakaar naa ne image boobu image bi reste Sénégal la ba léegi malheureusement te mu ñu ko wanaat depuis la RTS parce que loolu dafa xaw jël jël tuuti temps ku ànd ak nit bëreeg moom ngeen ànd dalalante àndante ngeen bëre ba bàyyi bëre dem ba màgget sax toog di jubilé ba ngeen di jooy yéen ñaar turon loolu foor na rëy na te Balla mi tamit dafa baax ni ki su defee lu baax nga wax ko àddina yëpp dégg ko ndax alaaji Abdoulaye Sylla laa taala anhu dama am si dégg ci ay kàddoom mu ne nit ki bu la defalee lu baax te waxoo ko bu ko neexee moom mu la defal lu baax mu yëg koo sàndaga yuuxu ne diw sàngam defal naa ko lu baax rabi laa taala anhu yàlla ko yàlla yàlla yàlla ko leeram la baayam bi dem waaye ay xaritu baayam mbéy gee tigga de face xëy na jotoo ci nouvelle boobu bu mu tëddee feebar bañ annoncé ko moom avancé bi mu njëkk a jot ci combat yi mu dëgmal nii dafa ne bala mu yóbbu dërëm ci baayam wala ndeyam wala écuréem jël naa nàngam jël naa téeméeri junni yóbbante ko sama baay Mbaye Guèye mu tëdd ah tey tamit du benn yoon du ñaar yoon indi xaru tabaski daj ci ay coono li saa wax léegi naa bëgg a dëggalaat rek que dafay jaamu yàlla moom Balla ci doomu aadama yi te lool nag boo ko def doo ko rëcc mu da koy gis ma nit ñu bari dañ ñëw nag di ma song na ma yóbbu ma ci baal dama koy jaale ji ñii ma nangul leen ñii ma gàntal leen ndax mënumaa ku ñëw ma gàddu la indi ndax moom i sax am na soxla yu ma war yeneen ndax yi fi mi ngi bëgg gudd waaye nag balaa jàppal ne bis bi sa bàyyi de demee ci suuf ba bu muy del siwaat bis mu ne ñi dañëw jaale si du ma sa jeex moo tax Cheikh Alassane Sène dañuy delluwaat di la gërëm di la sant ak sa taxawaay euh, euh, di nuyu waale suñu wëlër boobu ñu wax Alaaji Madiagne Ndiaye mi nga xamante ne mu nga ci Espagne nekk bàyyi Balla gay mii bëgg Balla Gaye lool ba indi un peu proximité bi xewoon sa digg ak Balla gay moom Madiagne kon bokk dañ ci doon dugal kàddu yi rek ndax Balla yaakaar naa ne fu mu toog war fa yëkkati kàddu su ma jébalee rajo ma ñàkk wax lu jekku du rafet ndax sama day sama doom ju ma bàyyoo day sama doom ju ma bàyyoo man tam muy sama doom joo xam ne ba nangu naa ko bàyyoo kon ba daal li yoraloon lii daal mooy yëkkati kàddu gi donc Balla dañ dellusiwaat rek ah di la jaay sa ñaari baay yooyu mbéy gerte gi de Fass Mamadou Sakho Double Less salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. inna batsa rabbika la sadiidun fa tabarakallahu xam naa alaaji Moustapha Njaal mu am na fi waaye Njaal mii tay xol yi tooy na Seex Alsaan mii wàcc ci biir gitaay bi wàcc ci biir daara ji ànd ak njaboot gii mu àndal sama rakk ju baax ji di Modou Mboup communicateur bii nga xam ne ñoo bokk lépp sëriñ bi siggiluñ ci moom sagal ñu ci moom ndax moo ko daggal billet yóbbul ñu ko ba Dubaay boole kooki teraanga andi ko ci biiri mbokkam kenn ku nekk jël ci wàllam kon sëriñ bi jërëjëf waaye jëm jii toog tudd nga ko ak bëggëm rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ak jur doomam tudde rasulillahi alayhi salaatu wasalaam mu jël baayam ngir sopp gi mu sopp rasulillahi yëpp baayam mu siyaara ji sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam yemul ci benn boobu defal ko waajuram mu jigéen defal ko soxnaam defal ko ay goroom defal ko mboolem ku mu seqal liggéey bi ba ca turandoom Baay Balla yàlla na yàlla yokki leeram borom jukko ju rafet te sa maam rasulillahi moo ne al man zalima al muslimuna min lisaani wa liyaadihi ñu ni ko rasul loo bëgg a wax mu ni julit dëgg mooy ki nga xam ne julit yépp dañuy mànkoo mucc ci ayu gémmiñam ak ayu loxoom omar sunu waa ji toog lorul kenn sunu waa toog gaañul kenn sunu waa ji toog xeebul kenn ànd naag waajuram ba waajuram wàccub liggéey mu waajal koog ci mbokk waajal koog dëkkandoo yi waajal ko julit suñu borom itam tabbal ko yoof kenn na ngërëm man maam Limaamu Laay al-Mahdi. jërëjëf di nuyu yéen kenn ku nekk turam ak santam di nuyu bi baax a baax a baax eh, di la sant di la gërëm eh, ci taxawaay bi nga xamante ne taxawu ko képp kuy jullit rawatina lii nga xamante ne eh, lu mënta ñàkk la mook àdduna ñu ànd. waaw euh, vraiment mus naa ñëw sa kër benn jour Père moom fi indi woon comme ni nga ko waxee ñu toog di waxtaan ndeysaan te lépp ci yeneen bi rek lañ doon waxtaanee nag mu nekk nit ku baax nag làmb moo fi yóbboon ak ñaan waaye fàtte naa sax man li ma fa indiwoon ñuy waxtaan ci yeneen bi expliqué ko lépp na ko ci man dégg yàlla kon kii nu ma ko leeralee sànq buur man na ko sama taaw man dama dama dama ñëw. yonent bi moo feeñ ñu ma tuddee ko sama soxna dem hôpital kon moom am na lu tuuti yum ci xamul ma leeral ko rek mu ne dafa dem hôpital ñu ne ko jigéen la ma ne ko déedéet dangaa juum mën ko lii ma gént ak lii ma woon nii man mosuma gis mel noonu kii góor la te yonent bi laa koy tuddee mu wax daax wax suba ba ngoon ma ne ko billaahi wallaahi pare naa ci noppi naa ci maa ngi tukki eh, fekk ma benn combat bu combat boo xamante ne bu gaal yëpp bàyyi woon coow yàlla ma jërëjëf jour bi nga xamante ne xale bi mu ngi ñëw àdduna jour laa mësa toog di xoole ba borset te xaw ma lu tax ma bëgg a nelaw mu tëma avant yi ñelaw ci ngoon gi rek après soxna si waxoon ne ma am na doomu góor ma ko jaru nga ma ko wax ndax yéen ci bi laa ko tuddee jamono direct Muhammadu Rasulullahi alladina maahu ashiddahu ala alkufaari ruhamaahu baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwanan simaahum fi wujuhi min asaari sujudi zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fi linjil كزرع أخرج شتاه وآذراه محمد مرجعنا ينتل محمد عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء زخرنا بذي العبادة فرعمي محمد مرجعنا كند سيدنا محمد عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء ذخرنا بذي العباد فرعمي مستوى كيف ترخى رقيق الانبياء يا سماء ما طاولت يا سماء كان ديتل محمد مصطفى أنت مسباء كل فضل فما تصدر إلا عندك الأدواء seen soppe boobee la kadaatul ulumi jërëjëf encore yëf yi mooy li nga wax rek lu mënta ñàkk faw moom muy dee waaye kon li nga wax rek victoire mun nga ko amee ci lu ne waaye boo nee victoire dee rek gars yi dañ naan mais dee moom mooy lan <laughs> waaye boo juree doom yu baax nga dem bàyyi leen fi ku ne di leen jaale yow mi dem yaa gën a baax kon nag wax dégg yàlla ñu ngi ñaan suñu waajur rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana yi gën a kawe ak suma papa Mbaye Guèye euh, tubaabu Joor Mor Fadam ñëpp yàlla na yàlla yërëm te xaar àjjana ah ak euh, suma turandoo Baye Balla mi xamante ne wax yàlla def na ci man ko ñaanal yàlla na yàlla yërëm te yi gën a nag yow wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant di la gërëm taxawaay bi rafet na. di gërëm père Madiagne bi nga xamante ne mu ngi ci Espagne wax dëgg yàlla nekk suma suma lépp gërëm suma papa Moustapha dëgg yàlla ba mbir yi ba léegi musuma seetaan waaw seetaanuma benn yoon nag te yàlla même fay yàlla na ko yàlla fay ak famille géyeen yëpp wax dëgg yàlla baabooy mii suma nit suma lépp noonu la mel ci dëj waaw bu dul bànneex bu dul naqar dama koy gis rawatina nag wax dëgg yàlla chaque jour ma koy gis maa ngi koy sant yàlla na ko suñu borom taxaw liiru jaan mooy doxit nekk suma mag suma lépp moom it wax dëgg yàlla yitteem yëpp lay bàyyi chaque jour ànd ak man di ma taxaw maa ngi koy ñaan yàlla même fa yàlla na ko fay buur mi nga xamante ne wax dëgg yàlla moom it ba affaire yi amee ba léegi mu ngi topp ci micro yi di wax rek lépp lu baax ak li nga xamante ne day def genn bu ñëw mu perte la donc vraiment sant nañ ko gërëm nañ ko di gërëm aussi tamit sumay kilifa ku ci mel ne Abdoul Aziz ak Baye ak euh, Masata di sant tamit famille Sakho yëpp lu dubalees jur yëpp na ko dëgg yàlla gis nañ taxawaay bu ñu ci def euh, ku ci mel ni suma mag euh, Malal di suñu taawu Baye di suñu xalifa di suñu lépp ñoo ngi koy sant di gërëm di gërëm it suñu tante yi ak suma yaay ñëpp waaye yow it mention spéciale ndax xam nañ ne nga jógee. nga bàyyi sa yite yëpp boole ñaari njaal yooyu ñaari njaal yooyu nga boole nga xamante ne ñoom def nañ lu ne ci làmb ba bu ñuy bàyyi làmb ñoo jibile jour boobu laay doog a dugg esat man waaw jour ba ñuy jibile ñoom ñaar jour boobu laay doog a dugg esat fekk Pape Konaté ak Isaapu yaakaar naa ñoo doon bëri waaw jour boobu laay doog a dugg esat di seetaan bëri waaw kon nga xam ne loolu misaal la yu bëri bëri yoo xam ne suñu borom lépp lu muy def rek. doy na waar yàlla xam doy na waaye sant nañ la gërëm nañ la mention spéciale yàlla na yàlla taxaw la yàlla na yàlla sàmm la ak mbooloo mu jurit yéen ñi fi teew ñëpp yàlla na yàlla fay tànk yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëf salaam. seex bi ñu delloo kàddu gi nag sëriñ Moodu Mbuub di sunu rakk di sunu xarit sëriñ bi moom kenn la ci ñun.